buñ ne moo dàq set ci réew mi ci jigéen du guleet ngeen koy dégg jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal soxna Abibatou national wala international bu ngeen ci bëgg la plus grande bi biñ ko dalee wax ba léegi ñu baree ñuy woo diñu ko dëggal ndax jëflante gi ñu jëflante moom ay vidéom heure bu ci nit jotee ba woote ci dina xam ni giskat baa ngi Balla Gaye 2 na ko waaye ñeneen ak ñeneen sedde nañu ko ci jëflante nga xamante ni mi ngi koy def xol bi rafet yaatu mu doon nit koo xamante ni nitu kase la soxna Aïba Batu mhm. dañ koo seet waat tey ngir waxtaan ak moom ci xam-xam ndax maandu weesuwul nga ni du ma ñaan waaye xam nañ ni sama sarax ku ma ko diggal bokkul ak ku ma ko digalu looloo waral sénégalais dañuy njëkkante ay saraxam di daw mhm. bu manifestation amee wala bu dara xewee rek dañuy daw ne soxna ab batu moo ñu doy na génne sarax yi gaaw looloo tax nag tey dañoo bëgg mu génnewaat saraxu Ousmane Sonko Ousmane Sonko ngi ci digg guddi gu bët setagul coow li dafa tàmbaliwaat ci kawam ndax dañ ko bëgg a libéré waaye libération bi dafa ragal bu ko bàyyee yóbbu ko foo xamante ne du dikkaat ci Sénégal te loolu arrangé wu ko soxna Abbatu ne ma sarax mën na lu ne ma ñëwaat ndax sëriñ Baara dañ ko yaakaar Cheikh Baara Ndiaye lool mu nekk ci guddi gu bët setagul yi itam soxnaam dem ba mënula teg bët ci moom ndax feebar goo xamante ni jéggi na dayoo soxna Abbatu ne ma soxna ne ma sarax mën na lu ne. waaye sarax mën na xëcc mën na fekk coow lu waroon a am mu jàllale ko nële ma bëgg cee wax Ndeye Ndiaye banna yaa coowam léegi Sidi Diop ak Wally Seck oto am na ci dëgg la waaye wërsëg la wërsëg la goo xamante ni moom moo ko mérité dinañ ci waxtaan ak soxna ay batu balaa boobu dañ koy bàyyi moom la plus grande voyante fii ci réew mi waaw waaw <laughs> mu nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñoo koy seetaan soxna si bismillah. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah waa Allô Sénégal maa ngi leen di nuyu. Mhm. di leen jox seen wàccuwaay bi ngeen moom. di nuyu samay ñaari waajur bu góor bu jigéen. Mhm. di nuyu sama boroom kër. Mhm. di nuyu kilifa diine kilifa aaday suñu mbokku catholique yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel si seen quinze août bi. macha allah. di nuyu fépp foo xam ne rek soppe soxna Abibatu mu ngi fi biir réew ak bitim réew bàyyiwuma kenn maa ngi ah. nuyu ñëpp. soxna Abibatu. ah sañse bi jékk na. waaye xam naa ni. da nga koo def rek ngir nganalu. Mhm. sénégalais dañ laa namoon nga gëjoon a génn. Mhm. ci yeneen ak yeneen nga nekkoon macha allah mhm. alhamdulilah. ba ñu dikkaatee waaye soxna Abibatou seet gi ngay def. ba réew mépp nangul la ko. ne yaa ko mën ci réew mi nangu ko nangu ko client wu seetkat yëpp soxna Abibatou. incha <laughs> waa alhamdulilah rabbil alamin Lamine toujours dama naan naan li nga mën. waaw ak li ngay tandus ak li ngay jéem bokkul soxna Abibatu macha allah dafa nekk nit koo xam ne li muy def daf ko xam daf ko mën. Mhm. man nekkuma nitu tappale. déedéet man nekkuma nitu caaxaan. Mhm. nekkuma nit koo xam ne dafa ma neex rek ma woo ay chaîne ñëw leen kaa ñu tourné émission. non non non man li may tourné émission sax bariwul. Mhm. ndax macha allah sama jot dafa néew ndax biir réew ak bitim réew ñëpp ma soxla. macha allah xam na ko waaw waaye Lamine. Uh-huh. seet dafa eh. nekk sama deret. yàgg nga ko wax. man soxna Abibatu. waaw bu ma doonul woon seen kat kon du ma jikk ndeysaan yàlla lu mu nam ci man ma doon ab seetkat dama si kontaan lool ndeysaan ndax man lu ma muntu woon doon lu seetkat bëgguma mhm. ndax lu tax waaw man da nee nañ damaa doon nag dama ko mën nag dafa nekk lu nekk man yàlla moo dogal ma doon ab seetar xam nga. Mhm. nit nga bëgg doon lu nekk te yàlla àndu si day metti day metti man nag macha allah borom bi gëm naa ni li may def ni def ci ànd. waaw macha allah mu nekk am dono nag ma doon wàllu ndey. Mhm. macha allah jàng ñu sol ma sama digganteeg seet daal dafa nekk loo xam ne. waaw lu doy waar la. mais soxna Batu seet ñu bëri ñu ngi koy def mais seet gu leer gi nga def maanaam toog ak nit ki wax ko tur. li nekk ci nangam sàngam wala nga ni ko sa problème mi ngi tàmbalee bés nangam sàngam bi nga defee lii wala bi nga jéggee liggéey na gisaane gu leer moo jafe. xam nga lan moo tax ma wax la ko. waaw dama nee leen ab ah, bibatu dafa tandusul. waaw lu tax seet bu leer jafe. tandus gi dafa bari. lu na tax seet bu leer jafe. ñi naan maa mën maa mën te mënuñu dafa bari. lool soxna Abibatu li muy def dama ko mën. macha allah li may def dama ko xam. est-ce que xam nga ne boo ma joxee sa tur ak sa tur yaay. yalla yàlla xam na ne dinaa la seetal ba boo moytul di nga jël say daal daw. daw kay. man dama lay wax macha allah li tax nga ñëw ci soxna Abibatu seetlu. Mhm. dinaa la wax dinaa la wax ba doo moytul sax seet bi du yegg ndax dangay kontaan. wala da ngay tiit ba naan ah yow de soxna si ragal naa la. na ñu jàngiwaat xam-xam. Mm-hmm. nañu jàngiwaat seet. bàyyi ñi mën seet seet. Mm-hmm. ñu mënul seet ñu dem toogi seen kat jàpp seen ñaam. mais soxna Aïbatou da ngaa yàgg a wax ni li nga contre mooy kuy seet nan ku ñuul kee ku gàtt ki loolu na nga nee nga day jaxase famille. loolu yabaata la. ak ñàkk mën sax yabaata la ak yàq mën. waaw waaw moytul ku ñuul kii moytul ko xees ki moytul lii moytul laa Lamine nit ki mën nga kaa seetal digal ko ay saraxam ba soxla bu muy ut si yow mën te doo ko jaxase. seetkat warul jaxase. seetkat warul tas fami jàmbur. dafa am ci ñi ma ko sañ a wax. waaw kay dafa am ñoo du ñëpp nag. waaw parce que bu ñëpp ñemoon ñëpp gedd seen cër. dëgg la dafa am ñoo xam ne dañ lay seetal ba pare noonu la ak sa famille. am ñoo xam ne dañ lay seetal mënoo ne laak say njaboot. Mm-hmm. man soxna Abibatu doxew ma noonu. déedéet dinaa la seetal. waaw waaw la wax say sarax. waaw dinaa la defal loo xam ne seetal la loo xam ne saraxel la sarax boo xam ne macha allah. Mm-hmm. problème boo mu munti am dina résoudre. mais man duma dugg si famille jàmbur. waaw kay oh mm-hmm. lii moo tax ñu bëgg soxna Abibatu. dañuy bëgg ngay génn soxna Abibatu ndax say wax dafay am solo. day cohérent ba pare dañuy xam ne seetkat baa ngi nii. dëgg la soxna Abibatu. nga jéggi nga nga jéggi ci seet ñëw ci sarax nga ni sarax ku la ko dàq ci réew mi amul ndax da nga koo miin peeg ko nee nga la la yàlla xañ ci ñaan yëpp defal na la ko ci sarax dëgg la ñu ngi koy gis ndax loo ñu mës a digal buñ ko defee gis ndam sarax ni nga ko xamee ak ni ko mënee xam nga toujours damay taxaw naan yàlla mënul tëj bunt tëj palanteer wàcc mhm. rido mukk du ko yàlla du la xañandoo lépp waaw bu la xañee lii rek mhm. mën naa am mu may la lee mhm. sant nag yàlla nag yàlla deful ma mën ñaan mais soxna Abibatu man maa téye sarax si réew mi ak ñu ko nangu. man ku gis sama xar kanam. waaw gis ma macha allah sama comportement. waaw waaw xam ne na man du may waxi caaxaan. déedéet du ma wax lu ma mënul. du ma def lu ma mënul. am honnête am fulla ak fayda. nekk jigéen ju mën góor macha allah. nekk doomu doomu waalo waalo. ak lébu. moo tax ma taxaw ma ne leen soxna Abibatu manul ñaan. Mm-hmm. manuma ñaan sarax laa man te si sarax laa yem. Moussa est xam ngeen ne lu tax ma ne leen damaa mën sarax. ak ñëw waaw. soxna Abibatu mooy seetkat boo xam ne dalay mm-hmm. defal sarax te doo si jëlee jàngoro. Mm-hmm. kon sarax nit ki mën na ciy jëlee jàngoro itam. ñu bari si ñi ma ko sañ wax. dañu lay digal sarax boo mujjee boo pa defee sarax bi pare doo gis tus wala li nga gis yëpp nga nekk si ay jafe-jafe. est-ce que xam nga ni ci yow laa xamee ni sarax de mën nga mën ngaa génne sarax ba pare xëcc problème. toujours ma wax leen ko saafara buy jur jàngoro. baaxul am na ñoo xam ne dañ lay digal sarax saan waaw du ñu mën sarax. Mhm. boo naroon am jafe-jafe maa day taale jafe-jafe day daal di yëg si. parce que sarax biñ la digal dafay xëcc jafe-jafe. Mhm. toujours Moussa mani leen nañ leen moytu sarax yi. waaw bu leen am problème problème ba yàkkamte seen problème bu faju ñu digal leen sarax boo xam ne seen musiba la. baaxul ci yéen. sarax da ngeen war a xam kan ngeen koy jox. kan ngay jox sarax bi kan ngay jox sarax bi góor la ak jigéen. da ngeen war a xam bésu sarax bi. jour bi aussi jour sarax bi. waaw da ngeen war a xam nit ki raw xaanam lan la bëgg. Mhm. da ngeen war a xam ne nit ki sarax boo xam ne boo ko defee ay affaire am dina gaam wala mm. day gën a tardel ci ay affaire am mm-hmm. nañ jàngat sarax yi te moytu sarax yi <laughs> toujours bu ñu ma dekkee micro dama koy wax parce que soxna Abibatu dama nekk nit koo xam ne man partout dans le monde ñëpp ma bëgg waaw man aw ma noonu looloo moo tax toujours damay baaxe di wax waaw dama bëgg sama xarit yi ñëpp jëriñu bëgguma kenn lor mais mais mais soxna Abibatu sarax ni nga ko maîtriser dama dama naan sax dama koy wax parfois ma ne bu ñëpp xamoon sarax ni nga ko xamee mm-hmm. ñaan dina demee neneen ndax sarax li nga ciy def mën naa ni moo raw sax ñaan. ah man de alhamdulilah ci jafe-jafe. oh Lamine. man de li may wax moom lépp lu may wax rek day nekk loo xam ne gëm naa ko. waaw da ngay gis nit koo xam ne dem na fu nekk ñaanlu. waaw région bu nekk dem na fa ñaanlu. Mm-hmm. dëkk bu nekk dem na fa ñaanlu gis résultat mm-hmm. mais soxna Abibatu bu ma la digalee sarax balaa yàgg li nga bëggoon di nga ko am. Mm-hmm. des fois sarax mën na gaaw ñaan te sarax gën na gaaw ñaan. waaw macha allah sarax dafa nekk loo xam ne boo ko tegee ci temps. Mhm. teg ci heure xam li ngay wax. te bañ a tandus. waaw def te yàlla tax. waaw lépp li nga bëgg di nga ko am. soxna ba dama la mës a gis nga digal nit saraxu daal la carax. Mhm. daal la carax lu mu mën ci sarax. ay secret di nga ni topp naa la de. ay secret la. daal carax lu mu mën def ci lu muy kii ci sarax njëriñam ay secret la. man njëriñam bari na daal soxna. macha allah tey tey defar. man daal damaa gis damaa topp ñoo xamante ni laax rek la ñuy digle sarax. <laughs> Ah. ma digg soxna Abbatu muy digle loo xam ne dañ sarax ay gerte. Mm-hmm. soxna Abbatu day digle sax bay digle bay digle yëre yu weex. macha allah soxna Abibatu koo xam ne rek mbër lii la loo xam ne boo ko saraxee mu baax rek loolu laa lay digal. lu ma sarax lu ma digal li wane daal seet li wane foo xam ne bu ma fa jaaree macha allah li ma bëgg dinaa ko am. Mm-hmm. bu ma fa jaaree client bi tamit dina satisfaire rek ma jaar fa. est xam nga ni seen saraxu ndox dama koo ragal ndax ndox heure boo ko musaan génn su ma ko génnee damay gis ni soxna batu mii nekk. waaw macha allah moom dafa baax dafa bëri secret dafa bëri ay yëf yu nekk ci biir daal. saraxu ndox macha allah dafa baax. li nga xam te waxoo ñu ko bari na de. ah alhamdulilah xam lépp wax lépp baaxul. dangay xam lu bari wax tuuti dese lu biir dese lu bari mais soxna Batu nit dina jàpp yoon ba yaakaar ni baax na ci moom bëgg a def <coughs> jokkoog yow nga xool ko ne ko yoon bi baaxul. bari na loolu bari na macha allah dal na ma yàggul. koo xam ne dafa bëgg jàpp yoonu États-Unis yoonu suuf yoon bi ñuy wax daal. yi xale jël. waaw ma di ko carrément yoon bi bu ci dem. baaxul ci yow. baaxul ci yow. te macha allah nag yàlla daf ma dimbali man samay client dañ ma déggal. ba ma leen waxee ne bul def rek duñu def. ah ku la sañ te bañ macha allah sant yàlla ndax ñi mu am ah, ñi ma waroon àndal dañoo am ndog-ndog si yoon bi. Oh. macha allah mu ne ma yaay booy mu ne ma naa mu ne ma sant naa la gërëm naa la ndax bu ma dëgëroon bopp dem dara daal ma. dëgg la sant naa yàlla. nga war a dugg ci liggéey wala nga war a dugg ci leneen man la bu ci dugg. nga war a takk soxna. du ma ne bul dugg ci takk bul bul takk kii sax mais dinaa la takkal sarax yoo xam ne defee man ñaanu ma. seen rawaan dinaa la am na ñoo xam ne dañoo war a sëy. waaw seen rawaan du ànd. Mm-hmm. am na ñoo xam ne seen bi dañuy am dañuy nekk biddéew boo xam ne safara. waaw ak ndox xam nga safara ndox àndul. dëgg macha allah boo xamee ñaar ñi seen biddéew àndul mën nga def sarax boo xam ne. <coughs> dina baax daal. dina ba dina boole diggante yi. non dina baax daal macha allah alhamdulilah ànd rafet. Mm-hmm. alhamdulilah mm-hmm. looloo tax nag soxna Abibatou international laa ko tuddee. li ko waral nag mooy. ay client bitim réew mu ëpp li tax ay client bitim réew ëpp mooy ku ko gis sopp ko ba woo ko mm-hmm. boo jëflanteeg moom xam ni sarax lu am la mm-hmm. xam ni ñaan yàlla lu am la waaye da ngay gën a gëm ni nekkete nit dina la gisee nii mm-hmm. ñu ne bitim réew ñu bëri gëmuñu woon seet gëmuñu woon ñaan waaye bi ñu jëflanteeg moom lañ ni ah ndekete nit mën na maa gis ba gis loo xamante ni kenn mus koo xam ci man soxna Batou dafa am loo xamante ni dafa xew ci réew mi bërki démboo dañoo gis benn fecckat mu jóge ci di Diop dem ci Wally Seck muy Ndeye Ndiaye Banaya sénégalais yëpp jug coow mbamb ko. Mm. Wally Seck mel ni daf doon tëj gémminu sénégalais xëy jox ko oto mu mm. jox ko baayam. waaw Lamine man toujours dama naan. waaw man defar rek moo ma war. dëgg la. man yor sama puso di ñaw rek ci dëkk bii ñoo ma war. ndeysaan ndax macha allah Wally Seck sama rakk la. Mm-hmm. Sidi Diop sama rakk la. waaw waaw mënu ma cee wax dara loo xam ne lu dëng la wala lu ñaaw la. Mm-hmm. mais man Ndeye Ndiaye Banaya peut-être am na droit dem fu ko neex. Mm-hmm. nit ku nekk am nga droit day liggéey après tout peut-être euh, fu mu dem moom moo ko arrangé mm-hmm. peut fu mu dem moom moo tax lu tax moo xam lu mu dem fa waaw point boobu du ma fi mën a sori daal parce que décision am la choix am la waaw taxaw ma lu tax mu def ko timide mais euh, la vie continue daal. waaw waaw. Mm-hmm. ndax avant avant muy ñëw si Sidi Sidi ngi dund. ah bien sûr bu la vie la vie continue Sidi ak Wally yëpp ñëpp a bokk ndey ak baay nañ leen boole rek. te ñaw seen diggante. ndeysaan. Mhm. ah njàpp nag yaakaar naa xam na xam na li ko war ci yoon wi. Mhm. te moog sii di yàgg nañ na continuer wéyal liggéey bi rek bañ am keneen. Mhm. soxna ab batu. Ah, bu ma jógee ci bànn yaa ak showbiz ak yooyu damay dugg ci politique. ndax langu politique bi mën naa ni ñi ci nekk kang fóore yëpp. xam nañ la ci seet gu leer. koo ci ne bàyyil day bàyyi de. waaye Cheikh Bara Ndiaye laa bëgg tey. ndax dafa nekk ndeysaan sama sëriñ sama kilifa. mu nekk ci guddi gu bët setagul. feebar sonn fa mu ne. jombul kenn waaye mhm. tamit rawatina moom daf di sëriñ am ñu bëri ñu yaakaar ci moom. mu nekk demono ji ci ko ci situation boo xamante ni dafay tooy suñu xol ñu koy dégg. ñu naan soxnaam sax mënta gisee ci moom jamono ji. ndeysaan maa ngi koy dégg. ndeysaan maa ngi koy ñaanal comme jullit ak moroomam. nattu la. Mhm. macha allah ya jombul kenn. dëgg yàlla bis bu dogalee ne macha allah fee di nga fa am bés di nga fa am bés. Mhm. waaye natt bu dal tegu ci kawam yàlla na ko yàlla gaaw teej dafa metti lool ku nekk da nga koy xoolee ak sa ndijaay. Mhm. ku nekk da koy xoolee ak sa rak. ku nekk mhm. da koy xoolee sa pap ku nekk da koy xoolee si yow. dafa metti di ñaan yàlla rek yal na ko yàlla may wér. Mm-hmm. yal na ko yàlla may xolu muñ. amiin waay yal na ko yàlla yokk doole. amiin waay ba ci guddi gu lëndëm gi bu nekk. mu doon guddi gu bersa guddi goo xam ne da koy nettaliwaat ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla lu mu mënul amul. Mm-hmm. mais am na ay sarax yoo xamante ni xëy na ku ne fee nekk ci digg tolof tolof yi. Mhm. ay sarax yoo xamante ni mbokkam soppeem wala xaritam wala man mi sax mën naa. ko defal buñ ko baax na trop. gerte waaw buñ ko mënee defal gerte xott. gerte xott bu mu doon noflaay buñ ko mënee defee kilo non non bu mu doon noflaay na doon gerte xottu. gerte xott ko ci juróom-ñaari saam. saam bu nekk def ci ndox bu sedd sarax ko ay xale yàlla baax na. alhamdulilah yàlla baax na. bu may mhm. di ko def ndax Cheikh Bara Ndiaye suñu sëriñ la. Mhm. dañ koy seetaan saa su ne di bég ndax pertinence bi ndax mhm. élégance bi ndax taalibe bi ndax yar bi waaye itam ndax mhm. xam-xam bi mhm, macha tax na ñu bëri sopp ko sama classe gi waaye sëñ soxna soxna ab batu ah cëppaa ndaw li di Ousmane Sonko itam ah jar na itam ñu duut fa baaraam moom it am na possibilité pour génn ci li ñu for ci wéewu bay waaye moom moo bañ ndax dafay bañ li dal Karim Wade dal ko ndax ku ko xam-xam ni bañkat la day bañ ñu tënk ko ci ay wax ba génne ko réew mi dootul duggaat waaw Seydina Ousmane Sonko bu sell bi tamit. Mhm. macha allah maa ngi koy ñaanal. ci ci lu mu nekk yàlla na ci borom bi génne. amiin waay guddi gu bës ga guddi gu métti bu mu nekk. Mhm. yàlla na leer nañ. amiin waay ndax Sonko nit ku baax la. Mhm. xale yi bëgg nañ ko. Mhm. mag ñi bëgg nañ ko ñëpp bëgg nañ ko. tolof tolof nag moo àdduna ñoo ànd. mais yàlla na ko yàlla teggil tolof tolof. amiin waay ndax macha allah oh. jeune la. te jeunesse bi dañoo yaakaar ci moom. ñi yaakaar ci moom dañoo dafa bari daal. yàlla na ko ci yàlla génne mais Sonko macha allah borom bopp la. borom bopp la balaa lu muy def dina ko xalaat. jékki-jékki rek nangu yenn décision yi. kon grève de la faim bi am na fu mu ko teg tamit. non grève de la faim loolu peut-être décision la mais man dem man en tant que sœuram. waaw maa ngi koy ñaan rek bu ko mënee dakkal mu dakkal ko. soppe dañoo bari na soppe dañoo bari. ndeysaan ñu ko yaakaar njabootam macha allah lekkatuñu naanatuñu. Mhm. macha mais Sonko am na ginnaaw. te mhm. macha allah moom borom bopp lépp lu muy def dina ko xam ak dina ko xalaat. waaw mais euh, bu ñu ci Sonko suñu kilifa yi dafa mel ni dañoo ne tekk. Mhm. seetaan mbir mi. Mm-hmm. am na ñu dem sax ba ne Serigne Mountakha. bi mu mm-hmm. yëgee coow li yàggul ndax dañ ko koy nëbb. Mm-hmm. ah suñu kilifa yi moom mënumaa wax si ñoom dara xanaa di leen sant di leen war. mais nëbb gi ñu leen di nëbb information yi. Mm, doy na ñoo ko bokk déggandoo. ndeysaan ñoo ko bokk taaliba cheikh la mais taaliba cheikh bu bëgg murit la. taaliba cheikh bu bëgg sëñ Muntaxa la. waaw sëñ Muntaxa ñëpp xam nañ ne defar rek lay def. sëñ Muntaxa ñëpp xam nañ ne mooy borom ree bu yànd bi mooy borom mbég bi. ndeysaan du ñaaw di wax lu ñaaw mu ngi yor pusoom rek di ñaaw. Mhm. waaw yàlla ma ak lu muy def ci suuf te kenn du yëg suuf te du yëg. tekkam bi lu tax mu ne tekk. Mhm. xañ na am na lu muy doxal loo xam ne. bugul bugul ànd ak wax ci bëri. waaw yal na leen yàlla defal gudd fan. mais tekk tekkaaralu Sénégalais yi dégg naa sax bañ ni. dafa am ay nag yu ñuul kukku yu ñu rey taatu géej. <laughs> am luñ ci def pour noot sénégalais sénégalais yi ne miig ndax bu ñu tëll Ousmane Sonko sénégalais dañoo mel ni. dañoo lu ne ma lu ne ñu ngi ko ci wax de. waaw lu ne ñu ngi koy dégg mais fii daal àdduna lépp mun na nekk. mais man damaa xalaat ne xale tamit dañoo conscient ci li ma xalaat. waaw damaa xalaat ne comme lii am am na. waaw yàlla tudd na ko ci des. ndeysaan dem ba ndeysaan dañuy sonn. Mhm. mais au seen xol neexul. waaw ñëpp xam nañ ne xale yi ñu bëgg Ousmane Sonko lañu. dañuy mhm. muñ ndeysaan dañuy xam ne muñ moo fi sës daal. waaw Ousmane Sonko yàlla baax na. yàlla baax na yàlla ci leneen incha allah moom baax na dinañ ko dégg ci leneen incha baax na soxna Batou sa rakk walla dimb sa rakk sa xarit sa lépp Balla Gaye 2 dañ koo tuddee doom Omar Sakho mm-hmm. lan nga ciy wax xanaa am si contentement lool ndeysaan am si mbég lool mm-hmm. di gërëm liiru jaan di ko sant mm-hmm. ndax lu mu def dafa rafet lool lu mu def wane ne lu muy wax ci Balla Gaye dëgg la dëgg la man ku bëgg Balla Gaye ma xam ko kuy bëgg bëgg lu Balla Gaye ma xam ko ndax macha allah Omar Sakho dafa doon sama rak doon sama xarit nee naa leen man ku may xool ci xale boobu rek di ma mere. Mm-hmm. ndax macha allah dafa nekk nit ku ma jox ci. Mm-hmm. Omar Sakho dafa nekk nit ku ma bëgg. Mm-hmm. nit koo xam ne du sigg sa xorma. ndeysaan man soxna Abibatu doxewu ma dara ñàkk fayda. waxewu may dara ñàkk fayda. du ma yor sama micro bii di jeter nit ay fleur. ku yaakaar ma wax la loo xam ne di sa jukko rek kon nga dee. man dama nekk nit ko direct. waaw mais Lamine Omar ku baax la. man abi Gaye man maa wax loolu. waaw waaw Omar Sakho ku baax la. Mhm. ku am kóllëre la. Mhm. lan mu lu gën a jafe ci dëkk bii. Mhm. mooy kóllëre. waaw te dafa am nitu démbam xam nitu démbam. waaw xam nitu tayam. nitam jaral ko lu nekk. moo tax turandawam bee du chance mérite la. Mhm. yeneen turi turi turi tur mu ngi ñëw. mi ngi ñëw de teral na ndayam. Mhm. teral na baayam. Mhm. ba ba bàyyi ja dem àjjana. macha allah lépp lu mu bëgg ci àdduna dina ko am dina ko am de ndax say ñaari waajur bu ñu la gërëmee bul tiit bu ragal. yal na ko yàlla lafal cat. amiin waay man nee naa man sama borom kër ku ko xam sax ku xam sama jëkkër xam ne ku tàng diine la. kon bu ma bàyyee may jëf jëflante. affaire yi dikk rek kon xam ngeen ne xale bi am na jikko bu baax. Mhm. man maa leen mën a wax ne am na jikko bu baax ndax yàgg nañu. macha allah turandoo bi kontaan naa ci lool. yàlla na dund te am. amiin waay baay te doon te am. amiin jikkoy turandoom. macha allah bu amee jikkoy turandoom rek ay waajuram duñu mer. dinañ bi <laughs> macha allah soxna Batou lan ngay tàggoo mbokk yi xarit yeeg soppeek am di jàmm yi lay si bàyyi xel fii ci Allô Sénégal. waaw alhamdulilahi rabbil alamin émission mhm. bi dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim. Mhm. ñu ngi siy fas yéene génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ndeysaan Euh, di leen ñaanal yéen seen chaîne bi yàlla na doon ay télé télé ci barke yonent bi. amiin amiin waay di ñaanal ci samay ñaari waajur bu góor bu jigéen ak sama boroom kër. di ñaanal kilifa diine kilifa aade di ñaanal soppe yi. Mm-hmm. di ñaanal Sénégal yàlla na fi jàmm sax. senegal jàmm ju ñu xam yàlla na fi gën a sax ndax ñun pays de la la. Mm-hmm. ñun ñëpp a tiitroo ñun. yal na yàlla may ñu doole. amiin yal na yàlla may ñu kàttan jàppale ñu. wallaay macha allah lafal ñu ci cat ak lu hmm. si baag balaa. Hmm. maa ngi ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp kontaan naa kàddu yi. Hmm. lu ci rafet xam leen ne yàlla suñu borom la bu ma ci juumee tamit maa ngi jéggalu nit rek laa ca matum. mbokki internet Allô Sénégal soxna Abibatou Gaye la plus grande voyante du samay wax du waxam waaye internet yi ñi jëflanteeg moom soppee clients yi ñoo dem ba wax ko ne dama ko wax sànq. waaye du woon ay caaxaan de nangu na client wu ñëpp nag seetkat yi fi nekkoon nag di jigéen ñëpp jël na seeni client waaw gars yi fi ne nag wax moo tax mosoo leen koo gis ci live TikTok mosoo leen koo gis ci leneen ak leneen muy wane ne ku am dignité la muy wane ne ku mat li mu doon la réew mépp ko soxla nag waaye nag ku jëf ndax lenn tax ñu soxla ko mooy ku jëflanteek moom rek da ngay xam ni yaa ngi doog a daj ci daj dëpp gi ba tey mbokki internet Allô Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg ci seen beneen émission jërë ngeen jëf.